Le rêve est devenu une réalité au village de Nyodan dans la région de Fatik, un village qui étreint son puits grâce aux actions sociales de fils qui ont voulu perpétuer la mémoire de leurs défunts parents. Ils ont trouvé comme moyen de financer ce puits avec le concours des membres de Sakuyu Action pour l'Espoir. Le puits numéro 617 porte le nom de Hashmali Dahman.

di leen ñaanal wer ak werle di leen ñaanal luñ ci am ci ci ci boîte bi yal na leen yal nañ ko jëriñoo yal na yàlla le seen wér gu yaram yàlla may leen bu gudd fan bu ànd ak wer yàlla lépp luñ ci jot yal na ko yàlla barkeel coono bi mu fi li coono bi ngeen fi jëlee yàlla rek moo ko xam mais ñun sax mënuñ ko wax ba mu jeex parce que fii dafa nekk dëkk boo xam ne eh, wax dëgg yàlla gisu leen fi courant gisu leen fi dara budul gis nga nu mu mel amul poti lampa amul dara dëkku àll la waaw kon bu ngeen fi indee ndox yala rek moo leen mën a fay waaw ñun leen ñun daal ñu ngi talal suñu loxo ci yàlla di leen ñaanal yala yàlla nañ leen yàlla fay jërë ngeen jëf ah ah robinet moom wax de robinet yi moom ñëw nañ mais courant moom daal moom lañ gën a kii moom. mais robinet pour nga kii da ngay fay quoi da ngay. da ngay fay bu seer sax. wallaay moo tax ñun dañuy tëj robinet yi forcé xale yi ñuy ñëw ci teen i nii ndax bu bu weer rek bu buñ la facturé da ngay da ngay bugg a dof te ngay baadoole di fay courant di fay ndox miti na moo tax ñu doon ñaan lii pour coono bi parce que xel dëkkandoo tubaab yi nax nañu ba ñu miin xale yi miin ceeb yi te nekkuñu si fonctionnaire kon bu bu ñu buggee jënd dund jëndi ndox kon day métti ci ñun te xam nga ne fii baa baadoole kese la amuñu dara amuñu dara bu dul mbéy waaw na gerte amatul nu mu daan amee jiw motul kon xam nga ne coono dikkee nañu kon ku ñu may lii wax dëgg yàlla mënuñ laa fay mais dañ lay bàyyi ak yàlla. beneen teen bi lu ah bii waaw bii de maa ko fi defoon rek nga coono bi rek ma foraatu sama tuut rek def ko fi ndax ni ma la wax rek wàññi fay courant bi rek loolu rek la woon walla mais ba mu neexul mais gis nga bi nga xam ne mbooloo bi yëpp moo ko moom gis nga nu mu mel masal nga ko sa bopp boo jógoon mas ko nag kale moo ngi saf comme xorom daanaka jur gi nag bugg na ko wante kenn mënu koo naan wallaay ndeysaan moo tax yàlla rek mooy barkel leen di jaajëfal eh, ci teen bi nga xam ne waa dëkk bi yëpp ñoo ko doon ñaan ndax ñàkk ndox gis nga yeneen kër yi sori nañ fii torop amuñu foofu fu ñu roote balaa ñu jot ndox bu neex dinañu dox loo xam ne mot na un kilomètre lu teg ñëw fii fii rek la ñu mën a amee ndox bu neex te mag yi ak xale yi daanaka ndoxam robinet bi la ñu am te ndoxam robinet bi jég euh, jigu du nenti mag bu koy naan yaa ngi jàmbatu sa bot yu lendem yaa ngiy jàmbatu sa tànka yu miti kon bu ñu defee ñu ñaan lii bu ngeen maye ko fii liggéey ko ci dëkk bi ñu ngi leen di jaajëfal ñu ngi leen di sant bu baax parce que dugal ngeen ci dëkk bi wér gu yaram wér gu yaram dugal ngeen ko ci dëkk bi yal na leen di yàlla jàppale yal na leen di yàlla sàmm def ngeen fii lu baax def ngeen fii lu baax loo xam ne eh, waa dëkk bi am nañ ci kontaan de parce que wér gu yaram dugg na ci dëkk bi jërë ngeen jëf lii moom wax dëgg yàlla kontaan nañ ci ñaan nañ ko am nañ ko jërë ngeen jëf. njëriñu seen bi moom mënuñu koo wax ba mu jeex ndax ndax moom ku la ko may moom may na la lépp. jële ngeen fi coono indi ngeen fi xiiwal yal leen yàlla jàppale yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla gën a dooleel ndoxum teen bi neex na neex na torop waaw robinet lañ doon naan biñ doon war a jëlee ndox dafa sori woon torop waaw waaye ndox mi léegi mu ngi ci suñ wet neex na bari na wax dëgg yàlla ñu ngi leen di jaajëfal daal waaw di leen gërëm di leen sant Il remercie ces populations, les heureux donateurs que sont Andy Veil et tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à cette magnifique réalisation.